Cheikh Béthio di waxtaan moom ba ci yàgg mu ne ko benn problème laa am ci àdduna mooy li ma xam ci astronome xam ko ci science physique ak chimie aw ma ko ma ko waxal physique la. Cheikh Béthio dem Paris ñëw di ko wax naan ko dem naa monument Tour Eiffel ba ma demee Tour Eiffel nangam laaj poids ba mu fa la suñu feri la ko ca côté ba wet ga ndeyjoor ba wala càmmoñ ba am na kuñ fa bindu xamoo ko mu ne ko ah Mbacke nga laay ma bi ku tudd diw moo nekk foofee moo defoon Serigne Saliou bi jëkkoon ci kër Cheikh Béthio tour de fel ñaata lañ nekk fa def ak poids bi li mu doon Cheikh Béthio toog ba mu yëm ko mu ne ko Mbàkke xanaa dañ faa demoon mu ne ko adduna bi dawum